dañoo woote ci ñu ànd coaliser defar réew mi képp ku réew mi ñor di nga ànd coalition bi pour ñu defar réew mi mais yow déjà avant ngaa dugg xam nga gars yi wax ay attaque fi kenn attaquewul kenn parce que dañoo am libre de penser di yor suñu xel di xalaat avant ngaa dugg keree nga sa benn wax toog sa conférence de presse dañ maa yebal am naa samay association dajale sa treize xaw ma PAMECAS xaw ma ay crédit mutuel la xaw ma ay organisation xaw ma ay membre yoo daal dajee nga sa loo xamante ni du dara ngay am nga ay tourisme mbooloo yoo xam yoo bootaay yoo nekk sa ginnaaw léegi créé nga sa mouvement da ngay dem dañ la wax na nga dem ñoom ñoo toog waxtaan concerté wu da ngay dem dugg ci coalition bi dèjà yow avant ngaa dugg ci coalition bi yaa ngi commencé di sànnee xeer xalifa woo na ma waaw fañang kañang kañang kañang wax say wax ñu noppi rek xam na ni yow duggoo ak bonne intention déjà avant nit ñi nga fi ne ni ñun kenn waxeewul ci turu parti kenn kenn kenn kenn parti bi kenn mais yow xam na ne bi ngay dugg intention bu rafet yóbbuwu la loolu na leer ci bopp ñëpp yaa ngi commencé di indi ay jeexi jaaxa ci xel nit ñi loolu benn la Nana Diop merci beaucoup yéen waa APR jërë ngeen tudd sama sañse bi ngay dugg duggoo ak intention bu rafet ñu nangu la noppi ndax kilifa dañu am kilifa suñu kilifa neen nañ fédéré nga dem toog ñëw ñu woo la pour nga euh, euh, euh, jàpp ci combat bi nga war a joxe comme Barthélemy li mu Dias da nga koy xool tey da nga koy gën a naw Barthélemy ak daye bi maam ak doole bi maam dem àgg mel ni taalu bi topp ci ginnaaw déglu ñuy wax si nga dom taam modesté ak humbleness lu mu la mayul rek du la ko xañ Sonko tey fi mu àgg yëpp nangu ak nangu topp ak déglu ndigal moo ko may mais yow arrogant bëgg maay jiite dañ ma jiital dañ ma ci nga boo nangul li yàlla dogal dangay ngay sonn sa xool day jeex yaa ngi dégg lan mooy couleur bi vert la ay vert blanc la ay picc moo ci nekk yow xanaa pur du vert blanc PS du vert blanc Pastef nekk c'est-à-dire lan mooy ay waxu couleur bu fekkente ni yow yaa ngi dem bay gis ay couleur xamal ni askan bi ñorutun la situation bi sénégalais yi dund nekkuta léegi nag buñ lay jiiñ naan la yow yaay gloria te nag bu leen fàtte mburoog soow mi am na gloria te mën na am suukar bu leen fàtte loolu affaire yi bu leen jàpp gloria kese mais suukar mën naa ñëw mën naa am mburoog soow day am gloria am suukar ndax mag magi gloria rek la wax suukar bi waxu ko kon cest ñun dañuy préparer lépp toog di xaar mais gis ngeen coalition bii PDS bokk ci ak mu ñàkk ci bokk loolu moom bëgguma ci woon kii ndaxte PDS bëri ñoo xam ay sympathisants Ousmane Sonko lañu mais.

pur bokk ci euh, Ahmed Aïdara gëm sa bopp moom tamit bokk ci euh, euh, ak ak ak ak ñeneen ñi nga xamante mënu ma leen lim sax ñoo xam ne damay fàttali seen seen seen turu parti ñooñu ñëpp buñ bokkee ñooñu ñu am valeur sëñ Mansour Sy Djamil kooku kan moo ko ça dafa ñu am valeur yoo xam ne ñu ngi ci biir coalition bi gis nga Thierno Bocoum tey amoon nañ suy mu bokk ci coalition bi mais dafa teel wax teel a wax baaxul moom teel a wax moo bi ndax am na ñoo xam peut-être ko tey ñu ngi nii ñëw jéem nañ jéem nañ dugg mais gis nga Bougane bu bañee lu ñu koy jiiñ ak lu ñu koy joxoñ ak lu ñu koy kii Bougane dafa manqué dafa ni muy defee politique bi moo dul noonu dafa enfant dafa dafa enfantin quoi cest à ni muy defee affaire bi like du du du du lañ ko war a defee yow yaay gagné sympathie wu nit ñi ci façon bi ngay doxalee mais ay gedd ay mer ay may jiite ay yoo xamante nii yooyu day tax nit ñu mature ñi nga xam xam ne lan mooy politique ak lan mooy enjeu bi duñ la duñ ànd ak yow duñ la jàppale te tey boo xoolee moom liggéey kenn tontu ko ci mais ñun ñuy def live à chaque fois ñoo ko te ñuy def ay live nag ñoom ñoo gën a ëpp doole parce que ñoom dañuy tey maa ngi ni def live presque deux cent cinquante personnes ñu may seetaan des fois il saa def neuf cent personnes seetaan ko

pour pour pour pour pour pour pour kii Modou Sène yow Modou Sène yow man waa bëri nekk fi man xamatu amuñ jom Modou Sène c'était un enfant tellement pertinent ba ñëpp di ko joxoñ naan macha allah xale bi mais léegi waxi dofa lay wax booy bi booy bi dafa dof naa booy bi xel mi dem na ndekete anyway bu ma bu ma génn ah c'est joriñ Issa Diène gis nga yow tamit bokk nga ci nga xamante ni yow da ngeen sabooti parti parce que li la li li li li man daayira bi dugg ci ci coalition bi loolu moo naqari fi mu toll ndax da nga amul dara kenn amoo mbooloo kenn topp la yow la sa jabar ak say doom amoo mbooloo léegi mbooloo mi topp sama ginnaaw naan jëwriñ daayira bi démb ma toog ndeysaan défendre leen ci plateau euh, de cette de TV nga xam ni kon bokk ak yow yow Facebook bi nga ne amoo benn télé bu la ci amoo fenn yow ko tojoo mais lan moo tax nga soxor Issa Diène Issa Diène may live nga may perturbé te nekkoon naa fu baax gis ngeen lii fu baax laa nekkoon mais Issa Diène moo ñëw di ma perturbé parce que soxor li nga xamante ni euh, taytalu jëwriñ bi ma yor moo ko naqari ak yi may sañse nii xool la ma la ca uul ca uul jëla yii moo ko ndax dafa gàtt dafa leel bokkuma ak moom na ko na nangu li yàlla dogal bu ko defee di posté ay posté di yàq sama der di découragé loo nit ñi joriñ dañ koy génne amatul ay affaire de sëñ mi neen amatul affaire sang moom amul lu ñu koy wax sonko sonko moom amul lu muy choisir naan am na affaire sëriñ rek ay affaire de fii moom par force sëriñ lay doon par force xalifa général lay doon mu nekk mu ndax dañ ko laaj affaire parce que moom yorul moom dèjà yorul moom dañ koy financé kon mu amul lu muy décidé naan fii amul ay sëriñ la ñu lay taalibe day toxaw ñu def ko sëriñ par force mu neexu mu naqari ko bu ko bu ko bu ko bëggul parce que moom nekkul moo ñu contrôler naan ni lii ngeen may defal lii ngay def bu fekkente ne da nga indi ay milliards am comme Idriss Seck wala comme Macky Sall sàcc say milliards indi ko ñëw jiite sa parti su boobaa boo nee lii ñu d'accord la mais yow ñu ñooy cotiser jox la nga naan ne da ngeen may def defu amul looy wax neen jëwriñ se kilifa nga kilifa nga diine nga sang nga da toog place sang ñun taalibe yi ñu nangu ay taalibe topp sa ginnaaw foo joxoon ñu jox ñu dugg fa nga nekk fii di lijjanti ay yow daan da ngay kuul kuul Sonko laay waxal yee bu ñun dem wax naa ko ci ñun ay taalibe ay disciple lañ pour que ñu nekkal ci combat bi ñu xam ne du ñu arrière parce que bu nekkoy politique la bëgg ñu ko politicien politique la bëgg ñu jàppee ko buñ koy bu bundu xataal dañuy toog suñu kër naan ñoom ñëpp a yem mais ñu ko jàppee kilifa jàppee ko sang moo tax bu buñ ko bëggee jàpp ñu génn rey suñu bopp ñuy dóor ay ay bal ñuy ñuy ñuy ñuy yuuxu ni dañuy dellu siwaat loolu jàppuñ ko politicien bis bu ñu ko jàppee politicien bis bu ñu ko jàppee di ko dir di ko yóbbu conk fii la ñuy toog di ko laal ataaya laal gerte kemb tegal suñu tànk tegal ko na muñ politique boo ko bëggee def nga ñeme kaso kon bu dañ koy des politicien foofu lañ jëm le mais ko politicien dañ koy jàppee kilifa rêve la koo xamante ni dafa suñu suñu suñu suñu suñu ci pour defar Sénégal dafa nekk ci ay donc bu mu ñuy wax ay amul affaire sëriñ ak affaire ñun sëriñ lañ ko jàppee mu neexoo mu naqari ko mu kilifa lañ ko mu mu ko ñun ko ay politiciens sénégalais yi ñuy def nii ay affaire yu triande affaire yu wax ay am ñaari bu fi ñu parce que mon kilifa la dañ koo jox Sonko lay waxal de li may wax ñëpp Sonko moko mom parce que na toog fi ko toogloo parce que sénégalais foog nga wan ni ñun tay liñu yor dañ ci dof ki ñu dañ ci dof gëme wuñ ko dañ ko tek fo xamanteni ni teguñu fa mbindeef buy politique Sénégal wax ji lay leer ñukoy waxu fiñ ko tek teguñu fa mbindeef buy politique Sénégal bu ko défé mu xam lolu bu ko défé ku ko bëgg laal da ngay laal askan wi ba paré doog koo laal mais bo fi nekké di jéem a modeste modeste loolu modeste ci ni ngay comporté am nga taalibe bax nga oyof nga bëgg nga ñëpp doo ku la tax talxam lu kenn yooyu lañ la sant mais ay naan non fii bu leen ma def lii nee na fii amul affaire sëriñ sëriñ nga am ay taalube daf leen ñu def bàyyi leen ñu bàyyi comme neexul nga génn voilà loolu mooy ne bugaan loolu la bëgg a xam mu xam loolu sax très bien moom mu xamale ko kii ay taalube la yor kii ay taalube la yor yoo xam danaa leen def leen def def bàyyi leen ñu bàyyi bokkul ak ak ak ak ay parti politique ñun ab daayira lañu yor am xalifa général am ay jëwrin

ku gore ku cohérent yow sa papa tey bu la ñëwoon fekkaat ci jamono doo defar sa toogaay parce que fi nga des sa tànk foofu la Cheikh Bamba Dièye ay da mbooj kenn moo desoo ginnaaw gaynde ak bawol gi ndaxte li ngay taxawee ci ku Sonko wane nga ni jëm ak tey changé woo sa doxin te opposition dafa métti ah. mais yaa fa ba tey say moroom maire nga fa nekkoon ñoom ñëpp daw nañ yow yaa ngi ci opposition ba tey di ànd ak ñoom di xeex ay da mbooj da ngaa mérite gaynde ak bawol yow foofu kenn mun bawol kenn mënu fa dara Bambey foofu mille élections mille élections yëpp da koy gagné ci kàttanu yàlla Barthélémy jaas kooku suñu mbokk la waaye du suñu mbokk ci diine waaye nag am na valeur yoo xamante ne nii am na musulman yoo xamante ne nii ñu ngi ci neen ci diine ji la nekk Barthélémy a gën valeur parce que am na dafa cohérent gëm na lu muy def pare nangu na yenn yi dañ waxante dëgg joriñ buy wax il faut ngeen di déglu fi muy waxee parce que ñooñu dina am mérite mënoon nanoo ñëw ni Pastef démb la judd luñ fi nekk naan dañuy ñëw di kii Pastef loolu la ñuy déglu lenn mais dañoo boole doole ji parce que Sénégal moo soxla.